ñëpp xam nañ ko yokk électricité bi bu gaa yi waxoon ne électricité bi dafa bëree ba ñu koy war a jaay léegi ñu ne dañ koy yokk daanaka sax léegi waxatuñu affaire courant mais dëwlin bi ceeb bi meew bi yëpp yokku na mburu mi gaa yi wàcc nañu levure bi léegi mburu mburu bu doon xoyam xoyamee amatuñ ko te ñoom ñoo ne courant bi duñ ko mus a wàññi loolu ay campagne électorale la woon mais tay ñep ñu yoré sen facture xam nañ que courant bi yokku dawlen bi bu doon jar 1000 francs légui mu ngi 1300 1500 ceeb bi doon jar li ak li ba paré lu su gëna metti moy le le problème au port c'est-à-dire camion yi wara a wara si war a jaar DP World doon fay 48 500 par mois légui c'est à 4 millions 600 lolu dang koy multiplier par lan dang koy multiplier par 1000 c'est pas normal ci ban texte lañ ko tek des camionneurs motax temps tous les conteneurs étaient bloqués au port de 40 de 48 500 par an on passe de 4 millions 600 euh, de, de, de millions c'est énorme hein sans compter transport bi ñu né dañuy euh, mais dañuy défa tali bu baax suñu défa tali bu baax suñu défa suñu suñu défa tali bu Euh, camions yi dinañu jaar ci yoon yaa jëli mais lu ñu waxoon lépp amul am nga courant ba mu ba mu day nga ne da nga koy jaay léegi yaa ngi yokk mais on est où ah léegi ndekki bi dina cher añ bi dina cher parce que ku yokk dawlin yokk meew yokk kii mais sama boy yi war a ndekki nañu yokk seen ndekki te ñun ñoo siy fay

niñ ko waxee woon dafa am benn liste boo xamante ni dañ ko deese mu doon ay orateur ñenn ñi war nañoo disponible ñu yor loolu na kay ak Sami Seck donc ñu ngi leen di demandé ñu rapproché wu fii joxe joxe liste bi ñu commencé orateur yi par deux minutes par trois minutes bu ko defee ñu mën a yegg jeexal liggéey bi je vous remercie merci beaucoup Malal nee a ndeysaan Pape Abdoulaye Touré Pape Abdoulaye moom jàppandoo nañ ko woon ak Guy ñu koy woo ci kaw mu ñëw il représente en même temps les Pape Bapak Abdullah Egi